ami fidèle internet de 24actu asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk mbégte lay doon saa su ñuy jënd ak yéen rawatina kóolu bi nga xamante ni wóolu ngeen ko ak ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu leen dal laaj seen beneen émission seen entretien tey nag dafa spécial ndax dañoo dalal ko xamante ne nii ñëpp ràññee nañ ko ci mim réew rawatina fii ci Touba mu di Modou Sall borom nay leer Modou Sall nay leer moom lañ koy daal di wooye moom moo nekk coordonnateur parti euh, réew mi coordinateur des jeunes bu parti réew mi bokk ci département wu Mbacké nekk ci commune bu Touba du def lu dul bàyyi ko rek mu daal di nuyu Modou Sall nuyu jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu mbokku internautes yëpp donc suuf su rek ma fàttali Modou Sall nay leer mm-hmm. nekk coordonnateur des jeunes bu parti réew mi. Mm-hmm. ci département bu Mbacké ci commune Touba. Mm-hmm. nekk itam président Fadal prévention routière pour le développement du Touba. donc di am mbégte ak euh, kontante bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal fii ngir taataan suñuy xalaat ci doxinu réew mi ak li nga xam ni ci la ñuy yëngatu. d'accord comme ni nga ko waxee sànq rek mais balaa boobu dañoo bëggoon tuuti nga leeral lan ñu lan mooy Modou Sall nay leer nay leer googu lan moo ko waral. waaw nay leer moom yaakaar naa ni yomb naa firi ndax ni mu yombee firi mooy ab làmp kenn du ko niit fu lëndëmut mhm. ab làmp buñ koy wax fu ni fu lëndëm a tax ñuy wax kon baatu fekk lu lëndëm nga leeral ko mm-hmm. ak doo dugg ci dara lu lëndëm mm-hmm. moo waral nay leer bi waaw ñu bëggoon a xam tamit lan moo waral euh, parti réew mi ak naka lay doxee waaw parti réew mi man euh, maa ngi ci nekk coordonnateur des jeunes mm-hmm. euh, donc parti réew mi yaakaar naa ni dama bokk ci ñi nga xam ni ci membre de fondateurs yi ndax li tax loolu ma man ko wax mooy ba may nekk di xeexal parti réew mi booba parti taxawagut booba itam yaakaar naa borom parti bi itam taxawalagutoon parti mm-hmm. ndax ba muy ba bañ ko génnee primatire en mille 2004 ci la àndoon nag moom ba fii ma koy waxee yow di ci liggéey ci parti bi ba nekk ci euh, kilifa comme ni ma ko mën a waxee ndax bu ma demee ba nekk ci koo xam ne dama ci jiite ay ndaw ci lu toll ni département bu Mbacké kenn ko ne xam na mm-hmm. ni mu toll ci Sénégal rawatina commune Touba mm-hmm. donc aussi loolu du lu ndaw loolu nag liggéey moo ko maye xam itam jëmmi parti bi li mu laaj xam réew mi li mu laaj ak gëm sa bopp gëm sa peuple gëm sa nation moo tax ñu dem ba yegg ci étape boobu. Euh, di gis nañ ne tamit élection yi ñu génn ñi nga sonnoon loolu ngir Idi gañe li nga xamante ni moo di élection présidentielle lan moo waraloon boobule Pastef ci mbir moom waaw damay gërëm d'abord ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci coalition Idi 2019 yëpp ndax du rek Idrissa Seck. moom moo demoon élection ndax am na ñeneen ñu ngi ko seqaloon ñun itam ci département bi ñu nekk ak ci commune bi am na am na ñoo xam ni ay parti lañu yor yoo xam ni ci coalition bi lañ nekk am na yoo xam ne ay association lañ yor am na ay bonne volonté yoo xam ni ci parti bi la ci coalition bi lañ nekkoon ñun ñëpp dañoo demee woon yéene ak yaakaar ak gëm-gëmu xam ni réew mi dañoo war a jóge ci étape bi ñu nekk demaat ci beneen loolu ci lañ doon xeex malgré que liñ naan jàmm ak pexe yàlla ak dogalam mm-hmm. jotuñu ci li ñu waroon a def kenn ku nekk xam na ni bu fekkee fii ci département bu Mbacké ci commune Touba li ñu waroon a def kenn ku nekk xam na ni def nañ ko mm-hmm. yaakaar naa ni Sénégal bu ñëpp defoon ni Touba mm-hmm. kon nëgë ni waxatuñu ko malgré que jafe-jafe yi ñu am sax fi mu toll nii bokkoon na ci li nga xamante ni bi euh, président Idriss Seck yaakaar naa junjoon na ko ba léegi nii gis nga boo demee ci réseau sociaux yi wala ci ñenn ñi nga xamante ni bii ñi ngi archivé ay mbir di nga gis ni waxoon nañu ni ca ca référendum ba la ko waxee woon sax ni bu ñu demee ba noo bi gagné waxuma la da ngeen waxuma la wii waaye da ngeen di wóoy te yaakaar naa ni tey jii kon yegg nañ fi mhm. kon yaakaar naa ni li taxoon euh, ñuy xeex xeexal parti réew mi xeexaluñu woon parti réew mi suñ bopp lañ doon xeexal mhm. parce que à fois dama koy leeral ci biir wax damay wax ni mhm. man kii ka Idrissa Seck kii ka Macky sàll ka Ablaye Wade doonuma leen man kan laa doon senegal parce que Sénégal li ma gëm mooy ku koy diriger rek. teg ko ci yoon ci baas yu leer ba nga xamante ni bi tey jii ku toog ci lalam di nga yëg ni kii nga dénk réew mi mi ngi ko teg ci ay voies yu normal ay voies yu legal ci sa gàttal nga ne kon bu Idi ñëwoon jamono ji situation bi ñuy dund réewum Sénégal duñ ko dund bien sûr parce que ñun programme yi ñu amoon du programme yi te it mbir bu fekkente ni dañu la koy dénk da ngay xam liñ la dénk lu mu doon bu fekkee mënoo nag ndax damay dama ciy joxe misaal waxtu wu nekk ni mhm. mi ngi mel ni tey jii nga jël benn oto yëpp ci 60 personnes teg ab sëfur bu mënta dawal ca kanam nga dugg ca biir day tey boppam ci garab te yàlla da ca garab mooy lii ñu dal ci noonu rek laay daal duggee wax ci situation réew mi jamono ji ndax bu ñu seetloo gis na ni njiitum réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni mbas mi dugg na ci réew mi ak léegi mi ngi wëyal di génn di ñu xamal li nga xamante ni moo di ay décision yoo xamante ni jël nañ ko ba bi ci rek moo di démb génn def benn discours ba ama am solo daal di wàññi li nga xamante ne ni moo di couvre bi ginnaaw ba mu ko defee ci le 23 mars bi ñu gis na tamit ubbi waan li nga xamante ne ni moo di jàkka yi ak jumaa yu bëree bëri daal delloowaat na ko ci ak marché yu ni mel ñu bëggoon a xam rek yow boo ma doon defal euh, situation réew mi jamono ji naka nga ko dundee liggéey. d'abord may masawu ñi nga xam ni ñoom ñoo ci tëdd ci lali hôpital. Mm-hmm. di jaale itam d'abord ñi nga xam ni ñoo ci jot ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. muy lu lu tiis ndax kenn ku ne xam na Covid 19 bi euh, ni mu perturber àddina bi du Sénégal rek mais àddina bi yëpp waaye dafay tolloog ni mbir mu nekk ak dëkk ba mu ñëw wala réew ma mu ñëw mm-hmm. contexte ba mu fa ñëwee ak la mu laaj ci ay matuwaay ndax ñooñu xam nañ ñëw gi na mu fa ñëwee xam nañ matuwaay yi ñu war a jël. ba feebar bi du évoluer foofu xam nañu it war nañoo xam itam bu fekkente ni feebar bi muy continuer di évoluer foofu nan lañ war a def ba man ko gérer loolu mooy problème bi léegi nag ñun problème bi nga xam ne Sénégal am nañ ko man tey jii bu ma ko doon jàngat dama lay wax ni la dañoo lajj dañoo lajj ndax lajj bi paasewul tey jii euh, bu fekkente ni bi maanaam feebar bu toll nii dafa dugg ci réewum Sénégal avant mu fiy dugg wala bi ñu amee benn cas président de la république boobu xam na ni léegi feebar bi mi ngi dëgmal Sénégal ndax man am na ay euh, génn yu ma ci defoon ndax dama noon feebar bi trop tard dina egg Sénégal ndax man du ma président du ma ministre du ma député du ma conseil président mais xam naa ni Italie gi nga xam ni feebar bi ma nga fa jóge Siin law ba Italie dem France xam naa ni Italie doomu ndey Sénégal lañ doomu ndey Afrique lañ kon ñun waroon nañoo xalaat ni lee tàkk fee fii la jëm si bi mu yegsee dama jàppoon ne président la war na nekk première occupation bu mu war a def mooy dalal ay médecins dalal ay sœurs mhm. dalal ñoo xamante ni tey jii seen xam-xam màcc na ci wàllu santé ak màcc na ci lu jëm ci wàllu virus bu egsee nan lañ koy lijjante ndax état dafa war a ah, kon suñu personnel de santé yi ñoom mënuñoo faj mbir mi. non ñu dikkee dañu leen a war a na dalal laaj leen seen xalaat. ci mbir mi bi ñu leen bi loolu amee mhm. président li mu njëkk a def mooy. man dama jàpp ni problème bi ñetti problème la ci bëgg a régler te ñetti problème yooyu mën naa ne la bu ko réussir ut itam daanaka euh, mi ngi ci ma ma ngi ci à 60 pour cent problème bu politique bi la njëkk a régler mm-hmm. ndax li tax mu man la problème politique bi la njëkk rek régler mooy bi mu defee loolu dafa dem dajale politiciens yëpp canaliser leen teg leen kenn amatul looy miin tey jii bu naa taxawoon tey jii bu président taxawoon nii bi bi ma recevoir diw nangam ak nangam laa wax wala nangam laa jox mënoo ko weddi parce que dem 30 minutes toog wax ak yow bu fekkante nii nag opposition bi ci boppam lay balaamee foofu parce que président li ko war moom mooy xool ci politique nan lay def ba lu mën a xew mu profité ci en politique donte nii feebar bi am na am na kenn weddiwu ko mais tam mu réglé waale ci ay règlement de compte yoo xam ne war na li ci réglé mais bu fekkante ni opposition bi dañoo normal ba ñu leen wooyee dañoo war a wax ni cinq candidats yi nga xam ne ñoom ñoo demoon ak quatre candidats yi demoon ak président ci élection mu foqarti élection yi ci ñoom looy wax nañ toog ci benn wërngalu taabal nga waxandoo ñu ko suñu xalaat ñun ñooñu ñu maasi ko tënk becc la loolu nga man ko doxal. muy lu leer kon bi ñu def par benn benn yow loolu amul maanaam parce dañoo mujj dem ubbi pale ba mu mel ni ab liste la. Mm. tamakat yeeg sabarkat yeeg kenn ku nekk dugg loolu d'ailleurs moo waral coow li parce que moo tax ba nit ñi dem ba nga xam ne gëmatuñ ni lii am na dañoo mujj jëm ni gëm ni mbir mi mbirum folklore la loolu lajj la ci mbir mi kon yaakaar naa ni man jàppoon naa ne méthode bii ñu ci yegge nii ci lii ci côté boobu waru ko woon def ba ca topp mooy euh, wax nga ko léegi maanaam euh, boo gisee ci bi ñu jógee ñëw nañu ni bi ñu jógee rek dañ ne bëri dañ ne dañu tëj jumaa yi nañu tëj jàkka yi ak aji màkka yooyu yëpp donc mais loolu pour man jàpp naa ni mesure la yu war a mën a nekk bu ñu demee ba laaj ko waaye waruñ ko woon a njëkke ndax li tax waruñ ko woon a njëkke mooy bala ngay tëj jàkka yi di tëj euh, barabi jàngukaay yi mm-hmm. donc da nga war na fexe ba nga xamante ni bi marché yi da leen di tëj tey jii marché yi ñoo gën a xumb jàkka yi mhm. la ñuy diir ba ñuy toog ca marché yi duñ ko toog ci jàkka yi duñ ko toog ci jumaa transport bi diggante bi ñuy toog ci biis yi di dem diggante gox ak gox moo gën a yàgg diggante bi ñuy toogee ci jàkk ji di julli kon yaakaar naa ni foofu la misir yi war na njëkkee bu àdd nii mosoo dégg ñu ni tëj nañ ko pourtant année euh, année passée l'anecdote euh, Pape euh, bi Abdoulaye nekkee am na jamono boo xam nawet boo xam ne dafa amoon retard Ablaat la mu njëkk a def tëjut jàkk tëjut marché xam nga lu ma wax mm. dañuy barab bi fowukaay yëpp nañ leen tëj eh après def na ko tëj nañ ko tëj nañ euh, grand théâtre yooyu yëpp tëj nañ ko kenn dafaa sañutu te dem tëjuñu ko parce que bi ñu jëli misir déggoo ñu boole ko ci misir yi jàkka lañ ci tudd ak barab bi jàngukaay bañ nañ ko ba dégg nga ab sous-préfet bu taxaw daal ni jàng ak jàng jàngi kaamil ak ak jàkka ak noonu népp imaam bu taxaw ci jàkka ñu jël la yóbbu mm-hmm. loolu moo war a na mujj dèjà loolu laaj la man pour man président amul ay conseil wala amul ay nit ñu koy xalaatal mais lu mel noonu njaaxum gu mel noonu ci réew mu toll ni Sénégal buñ la seetaanee nga dugg ci njaaxum gu toll noonu man ñi lay conseil am nañu. mais Sénégal placé nañ ko pays bi nga xam moom moo gën a sous-développé ci ci ci léegi bu ko defee yow bu ñu li nga xamante ni moo di marché est-ce que du indi ngaañ ci wàllum alimentation ndaxte boo nee Sénégal xam ne ñu néew déew la ñoo fi ëpp. waaw xam nga xam nga lenn lu nekk dafa am loo xam ne da koy prévoir balaa yegg si. tey jii boo demee Mauritanie gii ñoo ñu gën a jege. Gambie gii ñoo ñu gën a jege. Sénégal leen ëpp doole ñoom ñaar te boo demee Mauritanie tey jii amuñ benn cas boo xam ne moo fa am Gambie gi nga xamante ni ñoom ci ñun lañ bootu sax ci ñun lañ la ngambitu ñun ñoo leen tane ñoom ña ngay gérer ba fii Sénégal yegg yegguñ fa lu tax Sénégal yegg foofu nag loolu mooy laaj bi est-ce que du kon ñun dañoo toogoon di déglu di xaar ba yëf yi dal suñ ko ba nga xam ne attanutuñ ko ñu doog a jël ay matuwaay pourtant ñee ba yëf yi daataa yegg ci ñoom dañoo jël seeni matuwaay ñoom tëj seeni i frontière xool na la ñuy aare seen waa dëkk ñun nag ñu ubbi bàyyi ba yëf yi yegg si fii mu yegg si ñu bëgg a nekk bëgg a tëj nit ñi Sénégal bindoowut noonu parce que Sénégal problème bi mooy ñu réew mi bindoo pour nga tëj nit ñi confiner leen problème boo ko ak réew yu Europe yi parce que bu dee réew yu Europe yi am nañ ay marché yoo xam ne ay centres commerciaux lañ yu mag yoo xamante ni tey jii lu mbooloo ma bara bari bari bari ñoom dañuy respecter mesure de barrière yi distance yi dañ koy respecter donc am nañ jumtuwaay yoo xamante ni bii donc ci li ñuy liggéey ba tey jii mën nga toog sa kër sax ñu dugg indi la sa kër te doo dem ca marché Sénégal amuñu amuñu jum doole ju noonu kon ñun li ñu war a def mooy li ñu waroon a def mooy balaa ñoo yegsi ci ci tëji marché ñu fexe ba jàngoro bi du law yaakaaroon ne jàngoro ji di ko lawal bokkul ci ñàkk respecté yi nga xamante moo di mesure barrière yi ndax depuis Sénégal ñu bëri dañoo yaakaar ne feebar bi amul ba tey xam nga gis nga bi ñu demee ba ci euh, boobu ñu ngi am yaakaar naa ay vingt vingt cas ay vingt cinq cas yooyu mm-hmm. donc boobu éggaguñ sax quarante cas ci laa gis ni xam naa ni man jàngoor bi man maanaam fii ñu toll sax mën na ko ëpp ndax li tax loolu mooy bu fekkee ne dañ ni dañuy bañ dajaloo bi léegi mairie bu nekk ci senegal bëgg ngaa wane ci sa position politique jëm jënd juróomi tonni ceeb wala fukki tonni ceeb daal ne damay séddale ceeb junni nit xëy waaxu dikk bokk benn barab bu ñu daje kon loolu mënoo faa tere contact mënoo faa tere cas communautaire donc loolu doon mbir mi. parce que état moo war na jóg réglementé mbirum séddaleem ndimbal mi teg ko ci yoon comme moom moom waaye ñooñu ci état bi la ñu roy parce que état bi moo réglementé wut séddaleem ndimbal mi ndax ñi ñuy séddalee ndimbali ci jamono bi ñu tollu rek lajj weesu ko ndax ndimbali ku ko doon xaar ba léegi faatu nga ba nga diggee ñu déclaré ceeb bi ba léegi président dem ñu xool ne nangami tonni ceeb mi ngi ci poor bi ñu wàcce ko ba léegi ceeb booba kenn lekkagu ci kon yaakaar naa ne ku doon xaar loolu ku war xaar lu mat un mois wala deux mois ngay toog xaar ñaari saako ceeb yi ñu lay jox yaakaar naa ne doo ko fekk. kon ba tey aide alimentaire yi gisaguñu ko ñu ngi ci waaj ba rek procédure la procédure yi ñu ko def loolu ir xam nga procédure maanaam doo ko jo doo dem foo xam ne maanaam urgence la nga defa def procédure urgence moom urgence moo koy réglé. procédure nag loolu moom xëy na ki ki ngay demal ci procédure am na lu mu sukkandiku wala am na lu mu jàpp kooku mën naa nekk ci procédure mais ki nekk urgence warut a def loolu suñu doomu ndey yi nekk ci ci sous-région bi Côte d'Ivoire gis nga ni ñu def. dañu def ménage bu nekk ñu yónnee la cinquante mille francs pourtant ñun am nañ jumtuwaay yu toll ni mën nañoo fexe ba jaar ci moyen ci communication wala ñu jaar ci technologie foo xamante ni bii tey jii sénégalais bu nekk war nga mën a am dara tey jii 69 milliards lañ tudd ni 69 milliards mooy liñ jënd ci ceeb mais liñ xayma ci xaalis ci boo xam ne moom la ñu war a dugal ci sénégalais yi ëpp na lool. ndax tey jii boo xoolan ñi ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy séddale ndimbali transport bi rek yaa ngi dégg coow amoon na ci ñu ni 6 milliards. waa 6 milliards 6 milliards tey ji boo ko indiwoon ci département bu Mbàkke bii képp 6 milliards yaakaar naa ni bari na ñoo xamante ni bi tey ji war nañ caa mën a bénéficier wu ci 6 milliards yooyu foofu wàcc la 69 milliards yi tege fee ba pour pourquoi pas ci biir Sénégal boo demoon ci këru euh, téléphonique yi mbooleem ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi 15 euh, millions de habitants yi yaakaar naa ne boo ko doon xol 14 millions yëpp ñi ngeeg téléphone yaakaar naa ni pour nga jaare fa même bu fekkente ni bi xaw ma nu ma koy bu dee ci Orange Money lañ koy jaaree wala même bu amul compte Orange Money mën nga ko envoyé par code mu jëli ko. mais ndimbal tamit ci ki non ndimbal ci ki ko soxla. Mhm. Sénégal yëpp soxla ku leen dimbali. li tax mu wax la loolu mën nañoo segg ni ñi nga xamante ni bi tey ji ay salarié lañ mhm. ñooñu mën nañ leen cee génne mhm. parce que xam nañ ko entreprise bu nekk xam nañ la la muy xam nañ salarié yi léegi loolu mënul sax ci benn euh, temps boo xamante ni mën nañoo régler mbiru salarié yi teg leen ne daal ni ñi nga xam ne nekkuñu ay salarié ñu commencé ko ci par âge même ñi nga xam ne salarié lañ bu fekkente ni seen entreprise yi liggéey bi demeetul neenu noonu salaire ba dootu dem kon ñooñu ba tey mën nañ leen a dimbali nañ maa si dimbali jël base de données sénégalais yépp ñu dimbali leen ci mais mais ci bi nga xamante ne nii génnaan na mooy troisième bi nga xam doon na jàkkaarloog nit la ñëw euh, xamante ni ñooy ñooy yëngu ci wàllum payoor geeg wàllum bureau yeeg yooyu nee na ñu continuer di fay seen ko defee ñoom seen i dette yeeg yi ko fay ak li xamante ni mooy TVA yeeg yooyu noonu waaw xam nga foofu daf ni xam nga foofu dafa wax ni mhm. ñi nga xam ne ñooy entreprise yi bu ñu dàq kenn mhm. nañ continuer maintenir leen di leen fay moo tax man la salarié yi mën nañoo fexe ba génne leen ci loolu léegi bu ñu leen ci génnee ba pare ñi nga xam ne amuñu saleer mën nañ leen a fay mën nañ leen a joxaat xaalis ba léegi parce que 69 milliards yooyu bu doonte ni sénégalais bu nekk tey jii xam nga ndimbali li ci garaaw mooy après ndimbali moo jar xalaat mais jamono bii ci ndimbali nii jëre ko ta xalaat parce que ndimbali du ñëw ñaari yoon du ñëw ñetti yoon benn yoon lay ñëw léegi imaginel bu ñëwee benn yoon ñu jël saako ceeb jox la ko wala ñu jël ñaari saako ceeb ak fukki litre diw jox la ko pendant kuñ ko jox un million de un million de ménages lañ wax. Mhm. Sénégal ëpp na loolu. du dëgg léegi nag bu fekkante ni tey jii dañ ne sénégalais bu nekk danañ jaar ci jumtuwaay yi ci sa âge parce que ki yore responsabilité tey jii ci Sénégal bu ñu koy nat mooy ki nga xam ne am na vingt cinq ans mhm. jëm quarante ans jëm soixante ans mhm. ki am vingt cinq ans ba am trente ans am trente cinq ans kooku nañ ko jagleel somme bi ki jógee vingt cinq ans li ko tàmbalee vingt cinq ans ba quarante ans am na somme bu ñu ko jagleel. ki nga xam ne maanaam moo nekk 40 ans jëm 50 ans 60 ans am na somme bu ñu ko jagleel ñooñu ñoo yor kër yi léegi bu ñu defee benn vague ñoo ñu envoyé leen bu ñu toogee benn un mois ñu xool ne affaire bi kat situation bi saa sikut ba léegi liggéeyaguñ léegi ñu continuer defaat beneen relance pourtant 69 milliards yooyu bu boobaa dinañ ci jox sénégalais bu nekk parce que tey jii ñaari euh, saako ceeb yi ñuy séddale ak diw gi ak bon pat beeg yooyu. Mhm. tey jii bu fekkante ni borom kër goo ko jox 50 ñaari saako ceeb yooyu nga koy jox ak pat boobu nga koy jox. ñi boo ko defalee ñaari nit ci kër. yaakaar naa dinañ ca mën a dund lu ma deux mois wala danañ ca mën a dem lu bari. te kon bu boobaa daje yii ñuy daje ak rajax rajax jii ñuy def nii du ci am. Ah, am na solo léegi yéen waa coordonnateur bi ndax am ngeen jafe-jafe ak li nga xamante ni moo di maire bu Touba. bon amuñu jafe-jafe parce que ñoom itam ni ñu ko joxe rek noonu lañ koy mën a seddalee ñoom itam li ñu def mooy bi ñu leen bi ñu jëndee seen ceeb itam niñ niñ niñ ko ñëpp di defee lañ ko defee rek. woote mbooloo mu ñëw ñeen ñu jox leen ñenn ñu yóbbu bon et tout loolu rek xam nga Sénégal problème bi mooy crise suñ njiit lañ am. Mhm. parce que suñ njiit yi amuñu orientation bu baax seen bopp rek. Mhm. maanaam lu ñuy fexe ba ñu dégg leen nu ñuy fexe ba dajale mbooloo ñu nii waaw di def nañ ko def nañ ko ante bu ko sa loxo laal la ci lu bari doon. Mhm. parce que boo xoolee donc euh, nii mairie bi Touba nii yeneen mairie yi comme ça ni ma ko waxee rek ñoom ñëpp dañoo bëgg a yëkkatiku rek. mais def ko ci transparence bu leer mu yegg ci ñi war a yegg ñu néew ko ci def. d'accord sànq wax nga tamit nee nga yaa njiitul Fadel euh, Fadel prévention routière jamono ji tamit ñu gis ne service yu service yu bëri daal dinay am jafe-jafe naka ngeen koy dundee jamono ji ci côté transport bo bon muy lu métti parce que bu ñu demee ba ab chauffeur mën a jël permis ŋàbb ko taxaw ci naaj di tàllal loxo di yalwaan loolu dara gënu ko métti parce que gënulu ko mais amul pexe parce que li tax amul pexe mooy fan lay jaar mënta daw. parce que démb rek donc ci discours bi mu def maanaam lajjagum ci lajjati feeñati na ci ndax man dama jàpp ne lu toll nii transport ci Sénégal ngay def discours bu toll nii dikk sàppe ko te gis maanaam transport li mu man lim lim li mu doon ci Sénégal nga wàcc ko fa loolu yaakaar naa ne ak lajj weesuwu ko ba tey loolu ab laaj laay ubbiwaat foofu ci ministère am ak ay direction ak i directeur am ci wàllu transport fu ñu ne ndax ñoom duñu concerté wu ak ñoom wala ñoom dañoo xamut ñu ko war a wax loolu mooy laaj bi. kon fi mu nekk nii yéen da toog rek di xaar. parce que dañoo topp nu ñu def ubbi wuñ foofu dem ñu jàpp la mais léegi bi muy def discours bi démb ba ni misir yi daf koy wàññi. parce que xam nga misir yi mu wàññi boo gisee wax naa ko léegi boo demee ci sous-région bi nii Mauritanie ngi nii bi ñu demee ba nga xam ne dañoo dem ba nga xam ne maanaam misir yi ñu jël ëpp na loolu jaadootul dañoo jël dañoo jëlee euh, couvre-feu bi ci vingt ci ci vingt heures yóbbu ko vingt trois heures à six heures du matin tey boo xoolee ñun période bi ñu toll ci koor nga xamante ni bi jumaa yu bari dañuy naafila vingt deux heures la naafila gi jeex wala vingt deux heures yi dana tegal léegi ba léegi boo demee jóge ko ci vingt heures indi ko vingt et une ba léegi sensiwul six heures du matin jooju nga ko jëlee indi ko cinq heures du matin ba léegi amul amul benn changement parce que nit ñi moom buñ tëddee nelaw boo leen joxee boo leen kon 23h jooju mën na ko pour yóbbu ko 23h bàyyi leen 6h du matin rek pour nit ñi mën a continuer doxal seen diine jàkka yi wax nañ ko nee nañ dañ ko ubbi waat ministre bi wax na nee na bon. 12 personnes nee na 12 personnes. Mhm. loolu mooy li ñu war a njëkk bu ñu ko njëkkiwul tool yi lépp du am. Mhm. mais démb Macky souligné wul loolu. non moom dafa wax ni rek dana concerté wu concerté wu na ak ñoom dina xool léegi nan la ñuy def parce que loolu itam daf cee jox gouverneur yi ak préfet yi ak sous préfet yi seen i seen i euh, léegi ñoom nañ xool fenn fu nekk. la mu laaj ñu xool nan la ñuy fexe ba ubbi euh, foofa parce que kenn ku nekk itam fa nga nekk loolu gouverneur ak sous-préfet yi ñoom ñoo koy gérer ministre bi nag am na droit jox leen ay ndigal wax leen ni leen defee leen nii defee leen na mais loolu bu ñu ko defoon ca départ ba ba léegi kon problème doom kon ba tey jàkk yaa ngi julli jumaa yaa ngi naafile benn problème doom mais tëj ratt gi mooy indi problème bi yëpp te ginnaaw xamoon nañ ne buñ ko defee tam buñ ko déparé tam duñ ci mujj moo tax mbir bala nga koy dogal bala ngay jël ay décision da war a xalaat xool ña nga xam ne maanaam ñoom ñoo nekk ca loola di ca def di ca dindi nga concerté tamit waxtaan ak ñoom waaye doo jël rek parce que li muy gën a jaaxal ci état yi léeg-léeg état Sénégal mooy dañuy jël décision waxal ko seen bopp wëlbati ko layalaat ko layalaat ko seen bopp dañuy defal seen bopp wëlbati ko layalaat ko seen bopp ñu boo gisee ci biir discours yi ñuy def sax ci lu ci bari ci yenn organes yi. loolu lan moo koy waral. parce que li li ma jaaxal mooy li ma jaaxal mooy li ci bari ci yenn organes yi. Mhm. bu président defee discours ba pare. Mhm. au lieu dem wooyi tey jii sëfoor ba nga xamante ni masalan moo nekk ca euh, àll ba di dawal ñu laaj ko ni ko lii xew lan la mu joxe ci version ñu tenir ci en xalaat ni kii kat lii mu wax ni mënees ko war nees koo xoolaat déedéet xam nga ko ñuy jël ku ñuy ku ñuy waxal ministre bi moom du teggi kàddu président bu xalaatu ko li président wax rek loolu lay dëggal moom nii ministre l'intérieur nii ministre transport nii direction transport xalaatuñu weddi li président wax nii lii wër président wër woon a wax war wër woon dañ naan li mu wax rek mooy yoon bu ñu waxee loolu ci jàkk yi ak jumaa yi nañ concerté wu ak kilifa diine yi bala ñuy jël décision boobu parce que bu ñu nee diine kilifa diine yi nekk fii ñoo tax ñuy wax bala ñuy jël yenn décision yi nañ ci concerté wu ñoom ba ñu jox leen seen cahier de ñu ni que nii lañ bëgg ñu doxale ko ñu xool ne lii lañ ci mën a def lii kat bëggoon nañ waxtaan ci ngeen teggil ñu ko ñu xool nuñ koy defee ñu waxtaan ci loolu ba d'accord bu boobaa benn problème du a def ci secteur bu nekk nii secteur de santé nii secteur de mu mën a mais quand tant que nag dañuy toog ci seen bureau rek xool ñoom li nga xam ne maanaam moom la suñu ni ko ni ko ñenn ji di waxee li nga xam ne moom la suñ kilifa yi di wax nii France wala yeneen euh, day mel ni dëgg lay bëgg nul ndax duñ concerté wu ak ñun day mel ni dañuy copier fa rek collé fii te buñ copier collé fii rey ñu ndax ñun bokkuñu ak ñële loolu moom mooy mooy mbir mi et puis euh, transport bi maa ngi lancé un appel président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ay direction parce que bu ubbee lépp ñàkk ubbeeku parce que buñ ko ubbiwul nañ ko jox bilaam ñi nga xam ne ñu un mois buñ ko toogee lii di continuer buñ ko joxee bilan ñi nar a faatu te ñi dund ñi war a dund ñi dund ci transporté nar cee faatu buñ ko joxee bilan mooy ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo faatagul ko coronavirus. tamit ngeen dajaloo def benn mouvement boo xamante ne da ngeen koy créer ngir jëm ngir xeex euh, pour dimbali seen bopp ci mbir mi. xam nga xeex lan nga ko mën a defee mooy ñett rek nga mën a def mooy da ngay wax ñu dégg la wala nga bind wala nga dem toog jooytu jooytu gi moom gis nañ ko parce que nit ñi taxaw ci ay mbedd yor ay permis taxaw di yalwaan loolu xam nañ ni ñiy sonn na gënalu leen wax ji bis bu set nga dégg ci rajo yi ñuy wax bind itam bis bu set ñu bind yónnee leen loolu nga mën a def beneen pexe amul léegi nag ñoom bu ñu ko déggul defuñu ko mënoo ci dara mais tey jii war nañoo jël ay matuwaay bi mu demee ba nga xam ne maanaam mi ngi wàññi misiri wala na ne léegi transport bi nañ ko organiser man bu ñu xalaat dama naan ko transport bi nañ ko ko même mën naa bokk ci état d'urgence mën naa bokk ci couvre-feu bi ñu ni leen transport bi kat heure telle la ñuy départ mais heure telle ku départ dootoo dem fenn mais bu nee léegi béykat yi nañ leen yombalal ñu delluwaat seeni dëkk dem bay man nan nan ngay xàmmee man béykat la wala euh, Mandiaye ma leen baykat la wala Samba Gueye ma leen baykat la noo koy xàmmee dañ ko bind ci jë dafa am carte déedéet ban police ngay romb ne ko baykat laa mu mu bàyyi oto ba mu dem dala naan fu ñu bind béykat dëppal la lay wax boole ca ñàkk kersa gu mat sëkk tey gis nga ñun suñu suñu force de l'ordre yi. ni ñu nga wax ñu violence bi nga xam euh, yi. xam nga nit ñi euh, foofu ñaari problème daf ci am. man mhm. naa nekk ni Sénégal nit ñi xaw nañu dëgër bopp ci wet. Mhm. waaye gis nga suñ force de l'ordre ñun amuñ ay force de l'ordre seen force de défense yi bopp lañu. Sénégal ñu ci bari 80 pour cent yi nga xam ne dañoo sol tenue mhm. maanaam suluñ tenue bi ngir aar population Sénégal suluñ tenue bi pour aar dundu Sénégal dañoo sol tenue bi ngir aar seen bopp. ngir jël seen bopp di ci arnaqué. ndax lan nga wax loolu. chaque ci la ñuy nekk. parce que benn mooy dóor saaga euh, rek lañ lañ lañ nekk. te loolu amul ci fenn ci loi bi fu ñu ko prévoir te pourtant bu ñu ko defee ba pare bu ñu demee ñoom la ñuy joxaat dëgg. naam le Sénégal c'est un pays démocratie loolu kenn dootu ko naatable nga xamante ne xeex ndax dóor ak euh, loolu daan nañ ko xeex ay ati at tey bu ñëwee yaakaar naa ne le fait ñu ne nit ñi toog leen seen kër ñu bañ. premier jour bi ñu ko njëkkee def dóor nit ñi ba ñu ba ñuy dagg ñi def yenn yi bi ñu xëyaatee ci suba gisuñu kenn ci mbedd mi. déedéet xam nga xam nga xam nga dóor moom moo war a mucc dóor ak saaga moo war a mucc démocratie Sénégal léegi dégg tur yu ñu koy wax nii rek waaye amul amul parce que démocratie paasiwul maanaam nga dikk fekk nit ki parce que boo demee ci yeneen pays duñ dóor nit ñee ko xasee ko duñ saaga déedéet boo demoon France wala nga dem Amérique wala nga dem Espagne. tey ji duñ duñ dóor duñ la def duñ la torturer yéen torturer yi buñ dikkee buñ la nee buñ dikkee dañuy joxe heure heure boobu boo duggul dañ lay bindal te da nga koo fay dañ lay alamaan pourquoi pas ñoom ñoo respecté tamit li ñuy wax. ñoom dañoo njëkk ci yor yet ndax gis nga image bi nga xamante ni bii dem nañ ba nga xam ne état d'urgence bi woote nañ ko ak couvre-feu bi ay gendarme ay policier ay militaires yor ay yet naan tey ji ku duggul ci biir kon kay ñoom fas yéene wu ñoo aar nit ñi dañ leen fas nga gis nga gis ci ay image ay xale yu jigéen yoo xam ne ni sëñ bi dañ leen di def jëf ju ñaaw ay nit ñoo xam ne ne xam nga mi ngi gis naa benn ci image benn borom taxi boo xam ne day daw ba ci yàgg maanaam mu yem ci auto police bi rek wàcc taxi ba daw sampu xelam kooku xamoo fu mu jógee a ñibbi këram boo nga am tolérance wala nga fayloo ko bindal ko këyit ko mu dem ñibbi këram diggante bi ko jàppee mu daa ah man kat damaa demoon génnoon doon ñibbi jàpp nañ ma ci yoon bi xam naa ni damaa tardé léegi fay naa këyit bi laa fayee nañ ma may ma yegg sama kër loolu kay mën naa nekk lu dëgg mais loolu duñ ko xaar mm-hmm. xam nga lu ñuy lu ñuy njëkkante woo mooy fexe ba nga xam ne maanaam gis man naa dama yaakaar dañuy namuy dóor léeg-léeg <laughs> moom daal daal métti na d'accord ba tey nañ rek ci li nga xamante ni moo di discours bi nga xam ne def na ko démb gis nañ ki nga moo di Amsatou Sow Sidibé moom nee na d'accord ci décision na ko jëm ci ñu ubbiwaat jàkka yi ak lii di mën naa xaar waaw xam nga xam nga Amsatou Sidibé maa ngi koy nuyu sama xarit la Euh, mais bon xam nga kenn ku nekk ak sa sa gis-gis rek. moom xëy na côté boobu la gisee. waaye man li ma la wax léegi rek ñàkk ubbi ay jumaa ak ñàkk ubbi ay jàkka loolu dama yaakaar ni am na leneen loo xam ne moo ko gën a nekk lu priorité. Mm-hmm. parce que loolu mën nañ koo lijjanti. Mm-hmm. ndax wax nañ ko léegi bu dee jumaa ju ne douze personnes a fay nekk wala jumaa ju ne vingt personnes a fay nekk. donc nu mu mën a doon ñu respecter mesures de barrières yi takk maska parce que bul fàtte jumaa dem ci jumaa moo gën a yomb lijjanti ndax juma ja tey ji man bu ma fay dem dinaa sangu ba set xeeñ parfum sol rafet doo ko dem ci juma ja mais marché ba bu ma cee dem xoolal na ma fay yendoo xoola bis ba bu ma fa duggee na may bombote ak nit ñi ñooñu koy ñoo war a gën a yomb lijjanti ñoo war a gën a teel a lijjanti ka ngay lijjanti jumaa ja jumaa ja ay heure la rek te heure yi ñu fay def ginnaaw ñun lu mën a wax ku ci mën a wax Sénégal da nga naan nañ ñaan yàlla nañ ñaan yàlla mbas mi jóge fi waa ñaan boo koy def foo defee mën nga ko nekk mais fi nga xam ne maanaam fa lañ ko gën a yaakaar mooy place bi yàlla gërëm te juma dañ ni néegub yàlla la te kuy ñaan euh, dem ci néegub mm. yàlla moo xam ñi nekk moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci lislaam la moo xam ñi nekk ci diine catholique ñooñu sax bu ñuy ñaan dañuy dem ci seen néeg yi nga xam ne mooy seen néeg ñu ñu dem toog fa di ñaan yaakaar sàkkatumaan ak jullit yi bi nga yëgee imaam Léona Niassène bi ñu arrêté ajjuma ji la ñu génn ginnaaw ba mu jullee ajjuma pare lan nga yëg mooy imaam bi ñu mujj arrêté mm-hmm. li ñu arrêté ci imam moom mooy imam bi ñu mujj arrêté bu lew na ñaseen bi mooy imam bi ñu mujj arrêté loolu ci mboolem imam bu ñu arrêté rek loolu dañ koy ñaawlu parce que ay nit ñoo xam ne tey jii boo bu fekkente ni bu doom juddoo dañuy woo imam ba bu nit faatoo ñu woo imam ba bu nit bu woo imam ba léegi kooku ñu dem ba xañ ko ay ay droit am ko léegi maanaam waratoo génn waratoo def waratoo dindi ñun kon léegi fan lañ bëgg a jëm léegi loolu mooy affaire bi gis nga nit da ngay nekk da ngay nekk da ngay ñuul wala nga weex ñun dañoo opté ni ay jullit dañuy mën a nekk jullit mënuñoo nekk jullit ñu nekk leneen mm-hmm. point ginnaaw opté nañ nag nekk jullit ba pare loolu tax nit bu fekkee dafa xës opté nekk jullit ba pare mm-hmm. mu cay xeex parce loolu la xës doon ba pare ka doon leneen ci loolu la nekk mm-hmm. est-ce que bi nga xamante ne ni jël nañ ko ndax am na njariñ ndax gis nañ li nga xamante ne moo di cambriolage yi am agression yaa ngi wéy di amani ñi ngi faat nit ñi ñi ngi sàcc tamit ci jamono ji nga xamante ne couvre-feu naam am na man ci couvre ne la ñett ma ci kër koo xam ñoo xam ne dañoo nekk ci kër ay sàcc yegg fa ñu woo ma ci guddi gi ma jóg dem police ànd ak ñoom pour dem foofa. kon ku moom moo mooy laaj bi moo jaaxal ñëpp tëdd leen ngeen tëdd ba pare ñu wëlbati ko ñuy toj ay bitig ci seen ginnaaw di sàcc ay xar ci seen ginnaaw te lépp ci biir couvre-feu bi la léegi loolu nan nan ko mën a imaginer ñoom dafa mel ni ci nit ñi lañ am soxla nit ñi nga xam ne daal ay góor lañ ci lañ am soxla toloxal góor ñi mm-hmm. suñu takk der yi moom ci loolu lañ nekk mais nekkuñ fi pour jéem a lijjanti problème Sénégal parce que li ñuy seetaan ñuy toroxal sénégalais yi moo ëpp fuuf ba wala wëlbatiku ñoom ñu wëlbatiku di toroxal sénégalais loolu nag lii Sénégal da ca war a jàng bërki dem rek am na fi ci gédé gi ci ci fii ci wetu gédé xeex bi fi am ak police yi loolu mënoon naa ñàkk te lan moo ko waral kenn nit fukki nit ak juróom dikk bëgg koo yóbbu ban ban ban njëriñ la am loolu kay mooy dëgg maa bëgg a rey rek fukki nit ak juróom dañoo xañ ci kenn nit juróomi nit xajuñ ci kenn nit police saa fu ñu demee ci citoyen bi ni ko dugal ci oto dana dugg ci oto buñ taxawee yóbbu ko ni ko bit ku ñu yóbbu dañ lay fay loo waaye loolu kay yaaxeeti jërul jër amul problème buñ dikkee fekk la fi nga taxaw kay bu fekkente ne maanaam dañ leen ne ah sëñ bi dañ laa fekk kat heure bi kat dañ ko joxoon te heure bi weesu na da ngay mën a dugg di yóbbu la fanaan fa amul njariñ ñu boole leen jal ci benn nekk amul njariñ léegi kay da ngay fay boo fayee ñu bàyyi la boo liggéey kenn du la fekk ci mbedd mi waaye du ma la dóor yow da ngay faj problème bi ngay réglé mooy da ngay xeex nit koo xam ne nit ñi nit ñi feebar ak faatu ñoom ngay xeex léegi nga wul bi ko yor yet di dóor ay nit feebar boobu koy moo gën a woon feebar bee ñuy feebar bee bañ fële ndax kenn nga koo dóor xamoo fu xamoo fu mu toll xamoo fu niwam toll xamoo fu feebaram toll xamoo fu wér-gu-yaramam toll nga dikk fekk fa di ko saasaaxee di ko dóor kooku mën naa faatu sur le coup sax loolu moo gën a bon kon doo dem fekk loo xam ne maanaam lu ñu war a régler lu ñu war a lu ñu war a faj la nga wëlbatiku di fa def jàngoro parce que boo dee li ñu naan saafara su jur mooy kon lii ñuy def saafara Covid 19 bi far mu jur jàngoro ci population Sénégal Sénégal nag dañoo toll foo xam ne dañoo jógee ci soppi jëm ci noppi loolu lañ bëgg bëgguñ kenn koo xamante ne bii mooy wax dëgg wala kenn koo xam ne ab bañkat nga Sénégal bëgguñu loolu liñ bëgg daal mooy nekk ci ak yaama neex ku mbokkantu ci loolu lañ bëgg nekk te loolu nag mënta nekk nit ñi dañoo yeewu xam-xammee Sénégal ga woon ay 80 nangam du Sénégal 2020 yi Sénégal ga woon 2010 du Sénégal 2020 yi. Modou Sall li nga xamante ni moo di décision yoo xam président jël na ko yan bon lu ma ciy retenir ci li décision yi président jël bari na parce que comme mooy yi ma la suñu suñu fii rek donc état d'urgence bi fi ko yóbbu couvre-feu bi transport bi donc ñi nga xam ne waa kër docteur yi yooyu yëpp ay secteur la yoo xam ne benn bu nekk ay jubbante am na fa. tey jii boo xoolee ñun ci ginnaaw rek erreur yi ñu def teeru 500 et quelques milliards ñu ngi nii gaare ñaata at ba mu gaaree ak léegi. te léegi yaa ngi dégg bi mi ngi nii attunut attunut bu fekkente dem nañ ba am ay. Euh, mille mille mille mille patients munuñ ko munuñ ko téye léegi ña nga garde cinq euh, terre boo xam ne cinq cent et quelques milliards ma nga ca dem waaw loolu bu ñu ko defoon suñu santé a ni kon fekk na ñu am jafe-jafe déedéet pour mu wax la ni la lii ay jubbanti lii nag leçon la pour ñu xalaat ci ba kiy ñëw ëllëg xalaat ne buy gaspiller yëpp xaalis na xam li muy xaar ëllëg parce que lii prévoiruñ ko woon te waroon nañ koo prévoir état dafa war di prévoir lépp xalaat ne lu nekk mën naa ñëw dal ci am réew buñ ko prévoiroon lii du ñu dal mu ñàkk par war ba tey jafe-jafe yi tamit nemmeekuwaat nañ ko ci compu kii médicaments yi nga xamante jëlee nañ ko Madagascar mu ngi démb euh, Marie Xemes Ngom nee na dañ koy testé ba xam baax na am de te jëlee nañ ko Madagascar ba ko Sénégal la pare mooy li ma la xam nga léegi bu fekkante ni bii bi mu déparé mhm. moom daje woon na ak i médecin ak i médecine ak i sœur mhm. ñu commencé di gëstu ci loolu kon balaa léegi envoyé nañ ay mission Madagascar ñu dem saytu loolu ba xam dana adapté wu fii ak du adapté wu fii mhm. donte nii amaguñu woon cas sax danañ ci indi stock teg bu buñ nee am nañ benn cas wala ñaari kaar ñu traité leen ca loola bu boobaa bu jàllee ñu xam ne lii baax na parce que nit da nga koy waaj xamal nga ni lii dana yegg si parce que ni mu doon jógee ci Siin di raam dikk Europe dikk Amérique xamal nga ni dina wàcc si Afrique loolu leer na kon nag ñun duñ ko parawarut nit da ngay parawar bi ñëwagul président daal bu ma ko doon conseil dama koy xamal ni ko lii moom doon na loo xam ne maanaam bu doon nelaw fëgg nañ boppam ne ko yeewul jar na nag mu xalaat ci li nga xamante ni bii moo xew jar na itam mu xalaat ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ak moom di ko jàppale est li ñu koy wax wér na wala wérul est-ce que ñi ngi koy jàppale wala jàppale wuñ ko est-ce que lii mu nekk nii doy na ko fi ñu toll nii wala doyatu ko fi ñu toll nii parce que nit bu xalaatutul dootu jariñ dara teguñ ko fa rek pour mu toog ñu ni mooy président bi déedéet dañ ko fa teg pour mu aar ñu ko sàmm Sénégal sàmm doomi Sénégalais yi sàmm citoyen Sénégalais yi ba ca pepp suuf bi mujj moom lañ ko dénk lu ci lajj itam moom lañ koy laaj kon donc di gërëm ñëpp di ñaan euh, li nga xam ni mooy mbas bi nga xam ni moo xew ci àddina bi di ñaan ci barke weeru cor gi rek suñ borom teggil ko jullit yëpp waaye teggil ko doomu aadama yëpp ndax suñ borom moom dara nëbbuwut ci moom dara rëyut ci moom waaye dara tuutiwut ci moom. lii nag suñ borom léeg-léeg mu def loo xamante ni bii day bëgg doomu aadama yi jàngat deltuwaat ginnaaw xam fi ñu nekk xam fi ñu war a jëm xam fi ñu jóge xam nañ fi ñu jóge xam nañ li ñu def xam nañ li ñu nekkoon. xam nañ ne am nañ retard retard nag bu ma ko waxee ci physiquement mentalement moralement lépp laay indi foofu ci lépp loo xam ne doomu aadama da koy def rek am na ci retard kon war naa xalaat étape bi mu nekk bu fi jógee bay demaat ci beneen étape lan la war a waaje pour étape bi muy dem mu mën caa dem te lii dootu ko dal kon di sant leen sant aussi di leen gërëm di ñaan yàlla nañu suñu borom defal dégg topp tal donc di jéggulu mbokk yépp te xam ni Sénégal rek moo ñu ñor bëgg réew mi moo ñu ñor parce que dañ fi dëkk am fi njaboot am fi lépp mënuñoo tuxu mënuñoo dem feneen kon bu Sénégal baaxee ñëpp la baaxal bu bonee itam ñëpp la bonal. comme ni ma leen ko waxee sànq rek Modou Sall nay leer te yaakaar naa ne leeral gi am na solo ndax leer na naññ duñ def lu du sant ko gërëm ko ci disponibilité bi ak wuyu bi nga xamante ni wuyu na ko 24 actu nii rek lay demee saa su nekk en cant ak ngërëm ñeel ne la yéen ñi safoo site bi di leen